woon Ablaye Wade nitu fitna la dañ ne woon Ablaye Wade amul capacité amul compétence waaye bi mu ñëwee li mu jëkk def yërmande la mu jëkk def dafa ñëw jël Abdou Diouf Sénégal yëpp di ko dégg mu dem seet yaayu Abdou Diouf ne ko yaay mu ne ko naam Wade mu ne ko yow xaw ma ku perte waaye yow perte sa doom moo fi jóge sa doom moo dellu si ndax Abdou Diouf sa doom la man sa doom la yamul ci loolu buñ ko falee bés buñ ko falee mu jël avion bi jox ko Abdou Diouf ne ko dama bëgg nga teewal ma ci ay chef d'état yuy daje Sénégal yëpp du ko dégg mu ne xawma lu Abdou Diouf def ak lu mu deful waaye man Ablaye Wade bir naa naa ne duma ko seet ba di te noonu la ko doxalee ba mu jeex dafa ñëw di jéggal di jëllale dafa ñëw liggéey réew mi yett réew mi defar réew mi ci fukki at ak ñaar lim fi def Senghor toog na fi ñaar fukki at deful gi asaka gi Abdou Diouf def na fi ñaar fukki at deful asaka gi kon Ablaye Wade mën a liggéey alors kooku soo ko wuutoo dafa am noo wara mel ndax fii nag cees la Thiès suñ koy wax it mënuñu bañ a tudd sañ Babacar dafa am lu muy wax dafa naan ki yanu sak ndaal doo ko yéene mu fakastal ndax ndox ma ca biir kon ñun suñu sañoon ki Sall dafay liggéey suñu sañoon day def lu weesu lu Ablaye Wade def ngir suñu réew ndax bëgg dañu bëgg mu mu réussir ndax su réussir suñu réussir la ñun ñëpp waaye nag dafa du wanek ak yaa wuus parce que nag loo mokkalul doo ko tari mokkalul liggéey mënul liggéey mi ngi yàq réew looloo tax bu ñuy tëj kaso waaye amul solo li am solo mooy tey suñu waxtaanee fu réew mi toll réew mi dafa métti dafa metti lool la tax réew mi metti mooy démb suñu mënoon ñaar tey mënuñu benn gis nga am réew pour sama yaay yi fi nekk pour samay jigéen yi fi nekk pour samay xarit yi fi nekk réew nuñ koy yoree ak nu ñuy yoree am kër benn la soo nekkee ci sa kër borom kër gi di liggéey day liggéey su weer deewee mu indi soldam dugal ci kër gi ci lay texee dépense